décision nga jël war koo def suba fi ca su mujj ndax Sénégal yëpp ñu ngi lay xaar. waa alhamdulilah rabbil alamin kon xam naa balaa may xuus ci loolu am na ñi ma war a maanaam tey ñoo xam ne dama leen war a ndokkeel tey ci rabbiyal awal bi surtout waa Jamra. am na benn kilifu mag boo xam ne ñu ngi koy wax imam Maktar Gueye maa ngi koy ñaanal yàlla ci xam-xamam bu sell. di ko ñaanal yàlla gudd fanax wér gu yaram ndax genre ñu mel ni imam Mactar Gueye baax na ci société bii mooy Sénégal buñ fi ñëwee jox na ma ay conseils yu yaatu yoo xam ne man jëriñ na ma rax di dool dolli maanaam maa ngi doon junj 93 soldats yi nga xam ne ñoo desoon ci guerre golfe bi en 1991 xam ne maanaam Arabie Saoudite da leen waroon dédommagé jamonoy Abdou Diouf ba léegi sax junj na ma si lu sori mu ne ma ba léegi Kounkandé loolu maa ngi ciy topp di ci dox pour maanaam ñu dédommagé tey 93 soldats yooyu nekkoon si gerkol xam nga kon kooku jàmm rek lay dox si réew mi kon kooku ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla bu baax baax gannaaw loolu tamit maanaam tamit ñu ngi ndokkeel mboolemu kilifa boo xam ne yaa ngi yeewoo si réew bi moo xam kilifa diine nga moo xam kilifa aada ñu ngi leen di ñaanal yàlla di déglu tamit seeni conseils yi nga xam ne tey maanaam wax nañu ko léegi nag bref xam naa damay jàll tuuti si li nga xam ne jot na fay xew mooy programme bi nga xam ne mooy événement du siècle bi mooy yomul assura boobu nga xam ne mooy waxtu tàkkusaan mooy dajale moo noonu mooy dajale mbooloo bi yow teg leen maanaam si géeju Soumbédioune bi pour xotti géej gi pour jàll dem loolu mu nekk benn événement boo xamante ne façon coow bu ne jug na ci réew mi Sénégal ñu ne ñu ngi ciy wax pour bëgg see créer maanaam li nga xam ne tey mooy xay at ay bala yi coow yu géej gi maanaam yëngal na lébu yi lébu yëpp ba lébu yi naan maanaam tey dañuy jug maanaam pour def coalition pour dal maanaam ci li nga xam ne tey mooy doomi Kolda bi ak doomi Casamance bi xoolal tey mbooloo boobu tey bu waroon jug tey maanaam pour waroon daje tey si gox googu yaa ngi dégg at doomi Sénégal yi ñu waroon dajale tey mu nekk tey benn événement boo xam ne tey luy raam si ñag bi bu boobaa tey mun naa indi guerre wala xay si biir réew mi Sénégal te ñun bokk nañ tey si société bi benn ndaw boo xam ne ñun lépp loo xam ne balaay la dafay yàq société wala loo xam ne maanaam tey dafay indi safaan dafay yàq parce que fii dëkk waliyu yàlla yi la dëkk la boo xam ne ay waliyu yàlla yu màgg ñoo fi nekk ñoo fi tëdd ku si nekk rek am na mission yonent booy dox suñu awliyaaw yi Sénégal kon ñooñu ñu ngi leen jox xorma at kilifa diine kilifa aada ba tey safaan bi waroon a jóg at balaay bi moo xam doomi Casamance moo xam doomu Fuuta moo xam doomi Kolda la ak yi waroon dajaloo maanaam mu waroon def benn embuscade gars yi nenoon fa rayante wala nangam na nax lan programme bi nga xam ne maa ko mooy wàllu xar géej gi kon tey mes chers compatriotes sénégalais et sénégalaises programme bi nga xam ne tey mooy yomul ashura bi man Thierno Kounkandé bës boobu noonu moo doon waajal gunjur di ko annoncé naan danaa xar géej tàggu ma si woon ma Demba tàggu ma si woon ma sàmba samay nijaay tàggu waxu xamuñ ko samay soxna xamuñ ko amul benn journaliste boo xam ne oo na ne danaa xar géej man maa jëloon sama décision ne danaa xotti géej pour dimbali maanaam askan bi Sénégal ñu dem Europe. waaye comme jur na fi coow yi neen li coow bu mel nii gars yi di coow di coow yaa ngi dégg kon tey événement bi dañ koy reporte dañ koy reporté ci biir loolu tamit gis nañ ci tey ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ciy profité pour bëgg ci amaale occasion ñoo xam ne amuñ luñ def amuñ programme seen télé yi ku ci mel ni tey boo xoolee ay programme yoo xam ne yi bari si biir weer bii ni maanaam ay faux information créé nañ ko si nee nañ Kounkandé daw na yéeg na si biir gaal bi dem di créé ay sos te adduna bi yëpp xam nañ ne maa ngi suma kër téye suma njaboot di jàngale di jàngale xam-xam indiwaat nañ ay yeneen faux information naan Kounkandé xarum géej gi par force la bu ko deful dañ ko war a arrêté loolu ay karam faare la maanaam ay faux information la xam ne wérut ma ñëwaat tey am na tam benn journaliste ma gis boo xam ne amut lu mu def amul programme mu bind ma ne Kounkané dafa dem aéroport ñu teeku te man maa ngi sama biir kër gi jàmm. ñi ma war a jékkanteel ñi nga xam ne xam nañ man man maay kan ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ay kilifa ma ne nii wan résultat ñu koy gis ñooñ xam nañ man maay kan waaye tey. natt naa Sénégal xool ba xam ne Sénégal naka tey ay boroom xel newuñ fi yaa ngi dégg hmm. léegi ñu jàll ci deuxième point bi. mais sëñ bi laata loolu am na ñuy wax.